nous sommes tous les rek comme ay acteurs lañ yoo reconnus comme nous sommes reconnus d'utilité publique am possibilité mobiliser les gens. mobiliser on a presque plus de 5000 licenciés on a plus de 500 et quelques zones on a plus de 14 hors-caves, 45 ODCAV on mobilise chaque match dinañ mobiliser minimum 3000 4000 personnes 000 effort yooyu bu ko defee vraiment campagne ak li état di def à travers ces différents démembrements defe naa dinañ mën a xeex feebar bi parce que situation bi tollu tay ku ci nek daf ci wara duggal loxom ku mëna wo nit ñi pour ñu ñëw vacciner wu nga def ko. mbir mi nag dañ ko def parce que ñun dañ am cible mais yamuñu foofu parce que buñu fexé ba vacciner les les joueurs vacciner les dirigeants l'encadrement vacciner les supporters dañuy fexé aussi ba population yi nga xamante peut-être sont pas intéressés ñom aussi ñu ñëw.

phase bi nag nekk phase bu xaw a xaw a xaw a délicate tey moo tax taxawaay bi ñu am ni ñu tamaat taxawaay boobu te duñ fi yem rek dinañ fexe ba aussi population yi nit fu mu nekk ñu fexe ba mu ba mu ba mu comprendre ne vaccin bi aujourd'hui mooy remède bi nga xamante ne pour le moment moo disponible ñu jëm ñu jël ko pour nit ñu mën a nekk ñu nekk si ñun organiser nawetaan situation bi ñu toll nii nekkul suñu suñu suñu objectif nekkul suñu finalité dañu bëgg organiser nag mais tey li ñuy soxal li tax ñu jóg li ñu gën a yitteel moy fexé nit ñi faju nit ñi vacciné wu fexé nit ñi vraiment baña attraper le virus fexé fièvre bi joggé fi boba la am xel mu dal ci nax dañuy organiser wala duñu organiser parce que tay ci situation bi ñu nekk ni xalaatuñu sax organiser mais nak buñu fexé ba joueurs yi vacciné wu buñu fexé ba supporters yi vacciné wu buñu fexé ba population bi en masse vacciné wu fièvre bi delu ginnaaw ba mel situation peut-être ni mu meloon wala lu ko gën boba aussi dañuy organiser inshallah les championnats. tay nak dañu ñëwoon euh jappalé ñu nga xam ni ñoom ñooy mouvement nawetaan joxante suñu loxo ak ñi nga xam ni ñooy ODCAV bu Rufisque ñu tàmbali benn liggéey boo xam ni ñun ak ñoom ñoo ko war a continuer di ko liggéey fii ak fukki fan. liggéey bi nag mi ngi tàmbali samedi bi passé ñu commencé woon ko ci fi nga xam ne moom mooy stade Galandou Diouf biñ ko tàmbalee dañu bëgg a vacciner huit zones yi nga xam ne moo nekk ci ville de Rufisque huit zones yooyu nag aussi dafa am commune bu nekk ñi fa nekk pour que ñu def ko samedi ak dimanche def nañu commune bi nga xam mooy ouest tey ñu ngi ci commune bi nga xam mooy Rufisque Est Rufisque Est ci li ma jàpp mooy zone 1A am na 10 ASC yoo xam ne moom lañ ci war a ñàkk 10 ASC yooyu jàpp nañ ni ASC bu nekk am na 50 personnes yoo xam ne ñooy tourner autour muy joueurs yi muy dirigeants yi mooy ñi nga xam ni ñoom mooy staff bi donc 50 personnes par ASC bu ñu ci vacciner 10 ASC dana jox 500 personnes yoo xam ne moom la ñu war a vacciner tey jii.